ترابي aousubillah mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim aousubillah bisimillah inna waan yàlla asalaamaaleykum mbokk jullit yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen bëggee di jox seen wàccuwaay di leen wax ni nag ñu ngi encore une fois seen site bi nga xamante ni mooy KS TV ñu ñëw tey ginnaaw raay si waa kër Cheikh Papa Ndiaye ku dégg sa papa Ndiaye sa xel day dem si Cheikh Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax moom mi nga xamante ni euh, moo ni jël na ndaw ñëpp jébbal leen sunu borom si yoonu yàlla kon nag gars yi ñu àndak ak rek dem xooli waa kër Cheikh Papa Ndiaye lan la ñu waajal si koor gi ak Cheikh Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaax gaay yi ñu dem ànd ak ñoom waaw gars yi comme ni leen ko waxee woon rek ñu ngi ginnaaw raay si waa kër Cheikh Papa Ndiaye ku dégg Cheikh Papa nag sa xel day dem si Abdou Cheikh Abdou Karim borom Makarimal Akhlaq ñu ñëw fii si daara ji ñu fekk fii jëwriñ balay sa ak euh, jëwriñ euh, Aliou ñoom ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñoo taxawal tey café gi ñu leen laaj nag euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. Ah, ñu ngi delloo ziar di nuyu di nuyu ñi seetaan télé di nuyu sunu sëriñ sëñ taxa mu yàgg fi te ànd ak wér di nuyu xalifa général kullu Baye Fall. Cheikh Jëmbu Fall mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di nuy nag suñu yaakaar ci yu buntu liggéey bi muy sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fall di nuyu tamit suñu su seex koo xam ne mënuñu koo fàtte muy Cheikh Papa Ndiaye ndax lépp moom la di la sant yow muy aada ndax yow def nga ci ay jéego yu yu mag amaana danoo mëneewul wax sax moo tax mu xaw a demee nii mais lii moom innovation la boo xam ne waa koñ bi ñoo ko taxawal waa koñ bi ñooy boole seen i dërëm ak seeni i ñaar dërëm taxawal pour weeru koor ñëwee ñu jéem a joxe ndogu amaana moo ñu sax jàppale bu ci war mais ñun ñooy génne suñu propre moyen ay téeméer téeméer juróomi téeméer def ko si liggéey bi. def nañ ko nag ay ati at nekkul at bii rek ba daaw bi feebar bi amee sax lu mu dee dee ñu ngi doon jaayante di génne di def café di ko teg presque ginnaaw raay fii daaw rek moo fi ñoom ñun rek ñoo fi teg café di loolu dañ koy sant bu wér ndax ñun moom amuñu leen lu dul liggéey bi. liggéey bi rek moom ñor di sàkku nag di baalu ñëpp ak nag surtout waa koñ bi xam ne ne déranger nañ leen ci anam yéeg saxaar seeg yooyu ñu ngi jégalu ñëpp dañoo bëgg nag affaire yi jaar yoon ñu si war a jàpp génn ñëw jàpp si affaire yi jëm kanam loolu rek la. ndeysaan ñu si war a jàpp nag nañ si ñëw jàpp affaire yi jëm kanam waaw balay sax maanaam nan ngeen di dundee yoon wi fii ginnaaw raay ak li ñuy teg si deru ginnaaw raay ak bayfaalu ginnaaw raay li ñu leen di tuumaal lépp ak maanaam nan ngeen dundee daal koor gi. metti na trop metti na trop ba am na café yoo xam ne yenn saa yi sama ñoom nijaay dañ fay jaar di sonal gars yi dara du fa nekk sax mais ñoom war nañoo gën a bàyyi ne gars yi comme daayira lañu yor comme daayira yi daw ci daayira Tijaan beeg daayira Laayeen beeg daayira Isbu beeg ñooñ tamit Baay Faal yi seen daayira lañ yor dañ leen war a may tamit liberté boobu na Baay Faal yi defuñu lu ñaaw na Baay Faal fii lépp lu rafet Baay Faal koy def lépp lu rafet laa di wax loo xam ne ci jaamu yàlla Baye Fall la koy def te pourtant luñ jëlee lu ñaaw teg ko ci deru Baye Fall yi mais amaana loolu sunu maama ko ñaanoon muy maam Cheikh Ibra muy tuuma gu dul dëgg waaw te loolu dañuy yeggale kon dañuy ñaan rek amaana amaana lu gën ci ñun la mais ñun moom duñu ñu ndax nee nañ Baye Fall ab ragal du ko doon tapet du doon Baye Fall waaw dañuy ñaan nag maam ñi moom Baye Fall def ñu doon ay dëgg-dëgg Baye Fall ndax lu ñëw rek ñu mun koo supporter. ndax baay Baye Fall dafa war di muñ muñ ci lii lépp nag ñu ngi koy teg suñu kaw mais sant yàlla amaana looloo ñuy dumbali da ñun sant yàlla saa bu ñu rek maama ñu ñuy dooleel ndax ku ñu yéene lu ñaaw tamit amaana yaa ciy mujjee nekk rek mais ñun moom maam moom teg nañu si kaw ba pare kon ñuy sant bu baax waaw di delloo sant Serigne Touba bu wër surtout fii nag waa ginnaaw raay ñu ngi sant sëñ Abdou Karim Mbacke bu wër am moom rek la ñuy tiitaroo moom képp waaw ñun moom lépp lu ñu am sëñ Abdou Karim lañ koy yóbbul waaw boole nañu boole ñu ci maam Fallou te loolu dara gënu koo rëy. naa ci yomb di gërëm ñëpp nag ñëpp ñu fi teew ñoo xam ne teew nañ ci jàpp si ndax bëri na ñoo xam ne du ñu ci yeneen li bu liggéey mais buñ teewee dañuy indi seen ñàkk def si kontaan loolu su ti mel ne ay Aliou Diouf ay Diop moom day fanaan nii mais bu ñëwee day bàyyi lépp ñëw ci liggéey bi Ali ñoom ñeneen yi ku ma lim damay juum. affaire yi daal nii la fa demee gars yi daal ñooy jaayante def ci mais ñu ngi ñaan daal gars yi ñëw jàpp si taxawuñu ndax ñu mun a gën a ndax bëgg nañ di togg ay mbana di ko jox jaam ñi am na ñoo xam ne fi ñuy wàcc di ñëw dafa sori waaw loolu yëpp innovation yi bëgg nañ ko. ndeysaan Seydina Aliou ñu ngi lay nuyu. waaw maa lay fay jëwriñ Adama. waaw Seydina Aliou ñu dégg comme ni ko jëwriñ ba lay sa waxee maanaam fii daaw xawoon na doy waar lool ren ngeen jëlaat seen i décision taxawalaat affaire yi. te ku ne xam ne ni taxawal mbir yu mel nii yombul yombul kon bu ñu demee ba nga xam ne yéen jël ngeen seen décision taxawal ko rek am na lu ngeen si gis ak la am lan ngeen si bëgg lan la. waaw Ada comme ni ko jëwrin waxee rek ndax amaana lii bu koy def séntu wuñ ci dara ndax ay jaamu yàlla ay jeunes comme ñun ñoo volontaire yëkkati seen i dërëm ak seen i ñaar dërëm def ko ci donc comme li ñuy naan euh, affaire yi affaire Serigne Touba la. amaana am na commencement mais kenn xamul fu muy yem daal wallaahi la si biñ koy def ñun ñëpp ñoo boole suñu xol yi muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw parce que café gi boo xoolee ren la ñëw fii mais bu njëkk ci biir koñ lañ daan dugg benn mbana lañ daan segg kon buñ demee nag ba jeunes yëpp booloo yëkkati seen ñaar dërëm seen i seen i mille francs seen mille yàlla def tey ñu taxawal lii kon donc dañuy santaat bu baax a baax a baax a baax waaw dégg naa journal yi mais damay dégg chaque jour ñu naan Baye Fall yi dañuy tànqal nit ñi dañuy romb nit ñi di laaj seen i xaalis di ko jël di def seen poos ak genre yi bàyyi leen bokkoo leen si bay Fall yow. waaw loolu ma dama ci sawar a tontu parce que aada kuy kuy kuy kuy yàq deru Baye Fall da xamul Baye Fall man mii di wax damaa juddu tey si àddina maanaam bi ma ñëwee tey si àddina dama ñëw fekk sama yaay nekk jullit suma papa nekk ci nekk beneen maanaam doon chrétien. maanaam tey man la ma gis ci baay Fall la Baye Fall di dundoo man moo tax man tey ma ma tuub tey dugg si yoonu lislaam barke sëñ Abdou Karim Mbacke mu ma yaakaar nag sant naa ci yàlla bu baax a baax a baax aada xëy na lii may wax nii waruma ko sax wax mais sama dama koy tiitaroo parce que xam lu tax man dama gëm Serigne Touba te lépp lu ma mën am tey ci kaw suuf baay Fall la ma ko defal ndax sama wasi la sëñ Abdou Karim Mbacke man tey moo ma def ni ma mel kon kuy wax ci deru Baye Fall waxal ci deru Baye Fall ëllëg aada Baye Fall dina dimbali ñu bari wallahi lazim ëllëg Baye Fall dina dimbali ñu bari mais nag ñu xamul rek ñooy wax mais yàlla na yàlla dolli jàmm rek. waaw mais affaire yi fan ngeen ko bëgg yóbbu maanaam comme commencé ngeen si euh, démb ba ki démb leen commencé wor ngeen teg tey ñaari mbana mbana yi fan la jëm. non ñun moom bu ñu señoon liñ naan Baye Fall dafa xër bu ñu sañoon cet ba cet dañ koy dañ koy teg kafe bu ñu soxla ginnaaw raay kenn dootul segg café ñun rek ñun waa kër Cheikh Papa Moussa Ndiaye rek ñoo war a segg fi café di servir nag ginnaaw ñëpp mais nag liñ naan Baye Fall dafa yaatu boo tegee tey fii sa koñ tey yaa ngi dugg seneen koñ am na ñoo xam ne tey ñu ngi teg mbana kon donc loolu ku dul Baye Fall mënu ko Baye Fall rëyul donc ñun rëyuñu waaw. waaw mais ndeysaan nan la leen di def ngeen di defar ay bernde Baye Fall yi woor ba ngoon ngeen jël di leen jox ñuy ndogu di di nan la leen def. Fall nag loolu bokk na ci li ma gën a neex man su ma taxawee ci kaw tëri bu heure ndogu jotee bu ma naan nit ñi kaa leen ndogu man loolu moom a neex ci koor ne sax ni woor naa barki Sëñ Abdou Karim Mbacke man damay fàtte sax woor naa yaaram billaay man loolu moom la gën a neex oto yi may dogaale nit ñi di ñëw Baye Fall ñoo leen ndogu démb rek li ci li ma ci marqué dëgg-dëgg mooy démb benn borom oto bi ma ko bi ma ko dogalee mu ne ma yaaram li nga def ni yombule xanaa yow wooroo ma ne ko damaa woor mu ne ma doon ndogu ma ne ko non man xiifu ma barki Sëñ Abdou Karim maanaam bu ma koy def du ma ko sax yëg la si du ko sax yëg. mais yàlla baax mais daa mel ne heure joxe café bal eh, jëriñ dafa jot. waaw gars yi ñu ngi koy xel nii di ko joxe. bu ñu amoon gën a am jàppale dañuy suukar café gi lépp mais xam ne lu ñuy dem ak sunu moyen li ñuy suukar presque benn cin la ñuy suukar après gars yi lii nii mais comme jàppale bi moo des. Eh, eh, day yaatu laaj bi sax laaj bi laaj bi dëgg la ndax ab Baye Fall moom bu noppee laaj rek torox ab Baye Fall dafa war di laaj. ñuy jël ñàkku jàmm bi di ko def ci liggéey bi ndax looloo liggéey bi dërëm dërëm yi ngay dajale ci biir nit ñi ab Baye Fall dafa war di laaj Baye Fall warul rëy Baye Fall bu noppee laaj rek te mooy mooy mooy loolu ab Baye Fall day laaj te ñun ñu ngi fier di laaj jaamu yàlla yi ndax dañuy laaj boo amee yéene ci liggéey bi def ndax ñun lu ñuy liggéey ñëpp la ñuy liggéey tey nekkul suñu bopp lañ koy liggéeyal mais yow tey boo defee sa dërëm sa morom def ci dërëm li ñuy fayeeku ngay mooy looloo waral ñuy laaj. nii du cadre dañuy laaj mbir def suñu bopp fii ñun ñëpp am métier yor liggéey di liggéey di teral suñuy waajur mais dafa jot nag ñuy liggéeyal Serigne Touba fii nag dañ ko bëgg gën a taxawal mu gën a fës. incha allah euh, dinañ ko gën a taxawal dina gën a fës léegi dañuy ànd dem servi café gi bu ko defee ñu àndaat ba ci kanam nag ba heure ndogu rek muy gën a neex. deuxième yi mi noonu. café gi jot na dañ dem servi ko après ñu xool nee na ñuy def jaa ci jënd waaw gars yi gis nga ñoo ngi nii si waa ji sëñ Diop mi nga xamante ni mooy séddale kafe géej sexew si maa ngi dégg mu naan booy ñii dute ngeen bëgg ñii saxaw ngeen bëgg kon maanaam gars yi dañ def ñaari côté ñii defal côté bi saxaw côté bi kafe euh, sëñ bi ñu ngi la ziar. ah delloo ziar weer. waa Fall noo dundee tàngaayu matt gi ak jël bernde gi di jox jàmm ngir ñu xewlu. waaw ah, di ko dundee ak mbégte bu wér rek di ko dundee ak mbégte bu baax ndax ñun moom ay murid lañ ay Baay lañ. nekk si yoon bi rek di liggéey ngir ëllëg nag liggéey ngir tey moo tax lépp luñ si nekk rek dañuy xam ne mbégte la daal mbégte la loo xam ne dañ koy dund di ko bokk ak jaam yëpp te di ñaan yàlla mu jëm ci kanam ak yàlla mun na ko sëñ bi mun na ko yàlla na ko def. waaw maanaam mais lii da ngeen see jublu liggéeyal sëñ Tuubaa ak suñu borom mais maanaam dafa bëri baat yi leen si tegal léegi baat yooyu ngeen di dégg nan ngeen koy dundee. waaw comme ni ko waxee rek fu boot xaj moom xaw ñu mboolu te lii moom daw ñu si dara mun naa ne ren mooy huitième édition à part daaw bi ñu ko deful kon bu doon gis la boobu ba léegi kon dellu nañ ginnaaw ndax si ruq bi lañ ko doon defee mais ay travaux moo tax moment bii ni ñu déplacé ko andi ko fii mais xam nga lii daal mun naa ne si kanam la jëm ndax am na ñu ko daan jiital di def mais tey jii seen temps moo lañ ko moytul te ñun ñii ñëpp loolu lañuy ñaan peut-être ñun dañuy wàcc kon balaa ma fi ñëw 17 heures dañuy wàcc ñëw jàppaat si liggéey benn heure bi dem loolu daal daw ñu si dara daal nit ku nekk li nga wax rek xam nga jàppal ne yow ku nekk daal la jàpp ne lu wax rek wala lu mu gis rek loolu la quoi affaire yooyu noonu waaw. Ah. mais en tout cas li ngeen def rafet na te gars yi ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax ñu leen di conseil ngeen gën koo téye te xam ni comme ni ñu koy waxee chaque jour rek liggéeyal Serigne Touba amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am te day gën a jëm kanam mais café gi baa forme non yow kay bu fekkoon da nga bu fekkoon wooroo sax ma jox la kaas nga xool. eh dama woor de yow baa woor nga. man ci laa dëkk nag ci laa dëkk de de baax <laughs> kay ma. ñoom nee nañ dana woor ay Baye yu woor lan léegi dañuy ànd ak gars yi rek ñu séddale kafe gi bu si kanamee incha allah rabi ñu gën a yaatal mu gën a neex. waaw gars yi ñu ngi ànd ak euh, jëwriñ bi nga xamante ni moom moo yor wàllu xaalis gi nga xamante ni nag lu doy waar la xaalis sëñ bi ñu jox la xaalis ngay dugg ak moom si biir koñ yi biir kër yi biir roq yi te gars yi kenn du la topp di la xool noo dundee wóolute boobu. ah ñun de sëñ bi moom wax dëgg yàlla moom señ bi moom lépp lu ñu lépp luñ lépp luñ si mën a def rek dinañ ko def ñun sëñ bi moom dërëmam ñemewuñ ko see lekk buñ demoon ba fee làqatu ñuñ kese sax xalaatu ñu jël si xaalisu sëñ bi parce que lii ku dul ñukki doo ñoox la ñu ñun lii dañ si dañ siy def lii pour jaabu si yàlla rek dërëm wuñ ko si bu doon million yi dañuy ñëw joxe ko fi waaw wóolute boobu nag ñun Baye Fall moom Baye Fall man lañ ko jox joxuñu ko keneen bëri nañ mais man lañ jox rôle boobu yàgg naa ko def du tey ay at a ngi nii ma koy def heure bu ma téyee këll gi nag këll gi day xumb torop man moom bàyyiwuma kenn amoo aw ma complexe kenn damay dem pour laaj jox gars yi yaa ma a xam waaw. gars yi ñoo ko déggandoo nee na ku dul ñoqi doo ñoox léegi ku dul ñoqi doo ñoox est-ce que yéen avant ngeen di laaj gars yi ñoqi ngeen ba pare. ñun moom bu ñu ñëwee rek si këll gi ñooy njëkk tàmbalee avant tout ñun ñëwee njëkk joxe maaleykum salaam. waaw ma dégg ma dégg gars yi ne Baye Fall yi dañuy jël xaalis. di def seen poche ñii ni dañuy jël xaalis di ko def nii def naa nan ngeen di dundee loolu dafa doy waar. lu ne la ñuy dégg si Baye Fall Baye Fall lu ne lañ koy si am na ñuy wax ñii dañuy tuxte fii boo fi ñëwee ñun dañuy man ñeneen ak ñeneen dañuy woor am na ñu fi dul woor nag parce que ñëpp mënuñu woor waaw lu ne la ñuy dégg si Baye Fall naan dañuy saldel ay dugg na fii dañuy tux ñu kenn tuxu fii cigarette sax du fi taax fii ngay gis nii cigarette du fi taax fii ñun bu ko fi bëgg a tux dem ba bële si àll ba fee nga tux fa mais fii kenn du fi tux fi bëgg. waaw mais ak ñi ngeen jegee police ginnaaw raay ak ñi ginnaaw raay dangereux nan ngeen di dundee fii ak mobilisation bi ak mesure barrière yi nan ngeen koy dundee. mesure barrière yi moom surtout waaw ñoo ngi koy respecté moom wax dëgg yàlla ginnaaw raay moom ku xam fii xam ne fii dafa rëb fii moom gars yi mënuñu dawante. ñu sàkkamti maal ak bàyyi faale police bi moom chaque minute moo ngi fiy jàll oto police bi moom chaque minute moo ngi fiy jàll ñun moom lépp heure bu ñu fi jaaree ñu neex la ñuy taxee parce que duñu fekk si lu bon saa su ne dañuy ñëw fekk ñu taxaw duñu wax dañuy ñëw romb romb lañ fi am romb mosuñu fee wàcc mosuñu fee wàcc te fii ba café bi di jeex saa su ne jàmm lañ fii bëgg di fekk ñooy waajal nag ay événement yu ay cand pour café gi maa ngi koy au passage maa ngi waxaale ñëpp di ko dégg dañ fiy wàcc mardi bii di ñëw ba stop dañuy cant fii si café gi loolu ñun ñoo koy couvrir. voilà incha allah rabi gars yi ñoo ko déggandoo mardi biir ñu bi stop incha allahu rabi café gi fii dañuy def cant yu mag ñi ciy woo képp ku ne ashadoon laa la illallah ñi ngi lay woo si cant googu ndax waa kër Cheikh Abdoul Karim Mbacke borom makaarimal axlaa ñoo woote te ñoom bu ñu wootee wartu ndaw jëru ñu bàyyi la nga gën a laaj rek ba si kanam après ñu gën a yaatal jaa ngeen jëf gars yi mi ngi noonu Fall ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar bu wér. tur bi la. Euh, sëñ Fall laa tudd. ah ñu gis la nga ñëw taxaw si biir Baye Fall yi yor sa kurus di kocc koccal waaw ñun chaque année nag nii lañ koy faral di ko def parce que joxe ñam dafa bokk si euh, jaamu yàlla yi gën a parce que Cheikh Ibra daf ko doon wax ndax nee na bi ma jógee ci suñu borom dama ko laajoon ne ko lan moo gën a gaaw ci àggale nit ci suñu borom mu ne ma joxe ñam ak ñime tuuma kon nag ñun dañoo doon ay Baye Fall kon nag ñun def di joxe ñam parce que ñu lu dul loolu ndax ñun ay Baay Faal la joxe ñam rek lan xam. ndeysaan est-ce que xam nga ni joxe ñam yombut. joxe ñam yombut xol moo koy def. rawatina nga woor ba ngoon. nit ñi dem di dog yow nga nekk di wër nit ñi ngir forcer leen ngeen ñu lekk. dëgg la loolu loolu loolu loolu xol moo koy def. ndax euh, woor ba ngoon jot yow nit ñi joxe bi nga koy joxe noonu rek. yow maanaam loolu neex bi muy neex si yow dana tax sax ba sa heure ndogu dama na passé sax nga continuer di joxe ndogu yi parce que loolu dafa nekk loo xamante ni bi xol moo koy def te bu sa xol rafetul doo ko man Baye Fall dëgg nag moo ko man waaw ñuy ñaan nag suñu borom jàppale nu ñu continuer ko di ko def ay ati ati at di ko togg ay ndogu ndogu yi gën a barkeel ñu koy dem ba di lay ay nag lépp ñu di ko def ci kàttanu yàlla suñu borom. incha allah yi dégg ngeen nee na ñaan yàlla. affaire yi ji gën a màgg ñu dem bay ray ay nag yàlla mën na ko yàlla na ko def fal loolu ñuy tàggoo waaw maa ngi leen di ñaanal yéen ca kaw ca kanam rek barke Cheikh maa ngi leen di ñaanal bu wér a wér waaw KSTV yi nga xamante ne ñoo leen seet si tey lan nga leen di wax li ma leen di wax mooy maa ngi rafet lu seen liggéey waaw parce que lii yéen tamit lii ngeen def nit lu baax la parce que di ko wane nii ñu bëri dañ ciy roy di comme di ko defee nii ko ñëpp di ko def lii bu yàggee dina baax parce que am na si ñoo xamante ne bi dañu jóge fu sori am ñoo xamante ne du nekk ak seeni i soxna ak seen i ñuy wër di ndogu ci àll bi duñ am fu ndogoo def yooyu bu ñëwee fii nii toog ndogu loolu lu baax lay doon quoi moo tax lii nii dafa war a yaatu ñëpp di ko def loolu laa leen tàggoo. mi ngi noonu kon gars yi naka ñëpp di def affaire baa ngi noonu yaatu noonu sëñ bi tur wi lan la. Xaadim Camara. sëñ Xaadim Camara ñu ngi lay siyaare bu baax euh, di rafet bu baax tamit seen ñëw fii si biir Baye Fall yi di ànd ak ñoom si liggéey bi ñu bëggoon a xam sa taxawaay lan la fii nii. waaw ñun moom yaakaar naa café suñu ñu ko sos ci lañ bokk parce que biñ koy doog a tàmbali mu nekk gars yi ñoom Omar ak ñoom Abdou Ñaax ak ñoom seex ñu ngi Espagne léegi. ñoo ñoo ñoo tam doon liggéey bi doon ko doon ko def di ci màjjal ngir di ci di ci di ci di ci dimbali gars yi nga xam seen i maanaam seen loxo jotul seen ginnaaw ngir ñu mënoon ndogu ak gars yam dañoo liggéeyoon ba wàcc bu ñu wàccee mën a fekkee affaire yi ndogu quoi loolu loolu quoi histoire bi na dañ ci jëf ngir ci dimbali gars yi mbokk taalibe ak yenn gars yam seen i seen loxo jotul seen ginnaaw ak gars yi rom daal passant yi maanaam ni ñu ko mën a waxee waaw mais est-ce que yenn saa du ngeen ay problème seen biir ak Baye Fall ni mu amee fitna ak Baye Fall ni mu amee xët-xët seen biir yenn saa yi du ngeen am problème si affaire coow daal. waaw des fois du si ñàkk nag quoi du si ñàkk mais dañuy xamal ne gars yi rek comme mbiru Baye Fall lu mënti am rek ñoo xam ne day duggaat ci ak jaamu yàlla daal ndax ak jaamu Baye Fall mooy ak jaamu yàlla. te bu génnee histoire wala leen rek yaa ngi génn yaa ngi tegi sart yi ndax keroog biñ koy dàmbali bi ma gars yi waxee sax loolu wax ne leen carrément gars yi bàyyi xel ne euh, bërëbu jaamukaay yàlla ndax. ku xam na Cheikh Ibrahima li doon def ci weeru koor boo xoolee Jurbel lu ci mel ne ay mbana yi sax mënoo ko fi mënoo ko mënoo ko compter te loolu lépp ay xeetu xeetu benn la keroog maa ngi gaa yi naan la bu ñu tàmbalee nanu bàyyi xel loolu baax baax xam ne bërëb bi bërëbu jaamukaay yàlla bërëbu defarukaay la kon dañoo dañu moytu lépp loo xam ñëwee dañuy koy dañu si jëlee leneen loo xam ne maanaam du defarukaay la maanaam ci ay histoire ci ay maanaam xeetu tux sax ndax war nañ ko fi ngir dafa weex dugg te Unité trois maanaam policiers yi dañ fiy faral di jaar ak yooyu loolu lépp wax nañ ko ci gaa yi pour ñu wattu lépp kuy tox ak yooyu nga dem ba fële def defee ko fa waaye fii si mooy ma lañ defaree ma lañ bëgg a mi dañuy ñaan yàlla te di ko jox te muy ndigal ñu jox ñëpp kenn bañ fay maanaam jëfandikoo def la mu si maanaam safaan la daal waaw. jërëjëf euh, jëriñ affaire bi kàddu yi rafet na te am nañ si am mbégte ak contentement bu baax mais maanaam euh, KSTV bi nga xamante ne ñoo la seet si tey loo leen di wax. waaw xanaa di leen ñaanal yàlla ci barke Serigne Touba mi suñu barke weeru koor bi nekk nii suñu borom yokk la lii bu nekkee chaîne YouTube mu dem ba nekk télé ci barkeb Serigne Touba di leen ñaanal yéen ñëpp xam nañ la baay Fall bu baax na gis nañ sa vidéo yi ci Instagram bi ak gars yi nga yëpp ñu leen ñaanal yàlla dafa leen tawfeex ak taysiir chaîne bi suñu borom daf ko mu nekk télé barke weeru koor bi tawfeex taysiir. jërë ngeen jëf jaa ngeen jëf gars yi ñu ngi noonu. Malik mo Serigne Saliou baax na Malik moom rek la doy loo